allahumma salli ala sayyidina Muhammad ku yàlla bind moo xam président a doon moo xam ministre nga bëgg a ne moo xam mhm. salaatu ala nabi boobu. ah boobu xam naa doo ko joxe gratuitement. allahumma salli ala sayyidina Muhammad <laughs> wa rahmatun lil alamina zuhuru waaye loolu nag sëñ bi am na ci yoo xam ne il faut nga baaxee ko sama téléspectateurs yi. waaw danaa moom moom moom yow émission bi. émission boo xamante ne nii yonent bi lañ ko tuddee. rasulullah yi ko moom de. fi lépp loo bëgg ci wàllu loo xamante ne nii day jariñ doomu aadama. waaw boo ma ko laajee ma wax la ni la nangam lañ koy defee. asalaamu aleykum aleykum ye asalaamu fàtte cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti door nga mën ko njëkk am bul fàtte cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti door nga mën ko njëkk am xamoon nga ni abajada am na ay salatu ala nabi abajada bi hawaza waaw kala mën a saafa da xara taxada da rasul waaw xamoon nga dedet xolal fi ne bo jëlee alif bi waaw allahumma salli ala nuril alifi fi nuril alifi bi nuril alifi hadada ma fi hilmila salatan wa salaman daimaini bidawi mulkila ya alifu يا ألف est ce que xam nga ni tur yàlla la. lii de maa ngi koy door a في سر البائي بسر البائي وسلم على نور البائي في نور البائي بنور البائي عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بداوي ملك الله يا باء يا باء واو اللهم صل على سر الجيم في سر الجيم بسر الجيم وسلم على نور الجيم في نور الجيم بنور الجيم عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بداوي ملك الله يا جيم اللهم صل على نور الدالي في نور الدالي بنور الدالي وسلم على نور الدالي في نور الدالي بنور الدالي عدد ما في حلم لا صلاة وسلاما دائمين بداية الملك لا يا دالو nga xamante ni noonu nga koy toppee ba abajada bi jeex ba 28 lettres yi ba 28 yi jeex fi ne boo ko defoon bis bu nekk maanaam salaatu bu nekk ak arafam nga di ko liggéey ba ñaar fukki fan yi ak juróom ñett mat bu la neexee tegal sa kurus bu liggéeyate kurus bu bis pencee bu la yàlla fayee doo kenn doo ñëwee kenn ku yàlla bind allahu akbar manam salatu ala nabi li ci nek ci ay xéewal doyna war ak li ci nek ci ay jaamu yàlla yi fi ne nonu mu amé ci xurufil hijaaiya yi moy abajada boobu waaw noonu la amé ci turu yàlla yi fi ne bu la nexe nga ne allahuma salli ala sirillaahi fi sirillaahi bi sirillaahi wa sallim ala nuurillaahi fi nuurillaahi bi nuurillaahi adada ma fi hilmi laa salaatan wa salaman daimaini bi daawi mulki laa yaa allahu allahuma salli ala sirri rahman fii sirri rahman bi sirri rahman wasalim alaa nuuri rahman fii nuuri rahman bi nuuri rahman xadada maa fi xilmi laa salaatan wasalaaman daa imee ni bi daaw mulki laa yaa rahmaanu nga xamante ni nii benn bu ci nekk rek ci asma ci asmaawul laayil usna benn bu ci nekk nga def ko turu turu turu turu yàlla ba mu jàpp maanaam kon bu dee fataaxu bu dee da ngaa bëgg wërsëg waaw nga ne allahuma salli ala siril fataax fii siril fataax bi siril fataax wasalim ala nuuril fataax بنور الفتاح عدد ما في حلم لا صلاه وسلاما دائمين بداو ملك لا يا فتاح nga def ko 489 mais kon serigne bi li ma naan li may wax naan sayyidina mohammed moy ko sakkan ki moy ko sakkan ki lii daal nit kon mën na am tedd nga am wërsëg ci julli ci rasulillah ci julli ci rasulillah fi ne ki nga xamante ne daa bëgg a falu ak ci fal bu mu mën a doon ci adduna ngay saxal allahumma salli ala sayyidina muhammad as-sabih lil khalqi nuruhu wa rahmatun lil alamin zuhuruhu am na lim boo xamante ne nii boo ko dee def di ko saxal ku yàlla bind mënulaa teefal hum waaw. allahumma salli ala sayyidina Muhammad ku laa tere falu mun xam président nga bëgg a doon. moo xam ministre nga bëgg a ne. moo xam directeur société. Mhm. moo maanaam saxalal saxalal saxalal salaatu ala nabi boobu. ah xam naa doo ko joxe gratuitement. allahumma salli ala sayyidina Muhammad asaabiq <laughs> lil xalqi waaye loolu nag sëñ bi am na ci yoo xam ne il faut nga ko sama téléspectateurs yi. waaw danaa moom moom moom yow émission bi. émission bo xamanteni ni yonenti bi lañ ko tuddee rasulallahi ko mum de fi ne lepp lo bëgg ci walu lo xamanteni ni day jariñ doom adam waaw boo ma ma wax la ni la nangam lañ koy defé ko ko xam ne na ba nopi mhm. yor sa xam-xam mhm. ta amuloo liggey te bëgg liggey waaw legi salatu bi la legi allahumma salli ala sayidina muhammad as-sabih lil khalqi nuruhu Wow. wa rahmatun lil alamin zuhuruhu kep ku koy def 70 ya xam place bo bëgg diko yotu mëno jot wala ngay wut liggéey mënoo caa jot wala nga tëju mhm. sunu borom dana la ubbi ba yooyu yëpp di nga ko mën a am noonu la amee ci ci salaatu ala nabi noonu la amee ci sangat noonu la amee ci ci yeneen ak yeneen mais mais am na façon cangat yoo xam ne euh, jooni jooni lay am na am na jooni jooni fi ne nii bu fekkee comme ni exemple ñu ñu nekk ci euh, lu ñuy xëccoo lu rëy rëy rëy rëy waaw loolu nag du du du du caaxaan moo koy génne mais lu rëy rëy ñu koy xëccoo am na ci yenn yoo xam boo ko fa defee ku yàlla bind mënu laa jëlee fi nga nekk bu dee foo bëgg a demit kenn munu laa fàttiree dem te loolu lépp alxuraan la. allahu akbar loolu lépp alxuraan la maanaam fi ne damay damay bañ man chaque jour li may bañ mooy euh, alxuraan maanaam xam-xam bu ñuul bi moo gën a gaaw moo gën a gaaw bële. xam nga lu tax ñu naan moo moo gën a gaaw ndax ki nga xamante ne day liggéey euh, zulmaani yu waaw maanaam saa su tuddee turu turu suñu borom suñu borom bi daa malaaka yi gaaw leen fajal ma aajoom ndax mu bàyyi sama tur bi muy tudd waaw bu dee nag ki nga xamante ne daa nekk yu pire buy buy tudd yàlla tudd yàlla gi muy tudd yàlla day neex yàlla moo tax sunu borom nag di di déedéet du ko yeexal sax day mel ni lu koy diibal booy demee ba fi ngay bëgg fi ngay bëgg xadde rek mu mu dóor la mu mu liggéeyal la lool lool lool loola sotti amul lenn lu jàmbi di bëgg lu mu mën a doon fëgg ko ci salaatu ala nabi sa diggante ak sa borom te sunu borom du la ko fajal mënta nekk mi mi rasulullaay daal mooy mooy balluwaay bi moom mooy balluwaay bi lépp lu nit bëgg ci àddina boo ñëwee ci Seydina Muhammad mu fajal asalaamu aleykum alaikum, yeah. Assalamu alaikum.